bu baax a baax a baax di ko nag xool bi tooy na waay nag saa su nekk damaa jël rek bàyyi yëpp nag rek su ko defee ñu gën a def ba mu baax jàppale askan bi ci biir kër gi na yéen si seen bopp yéen a ñu ñor ba nga xam ne suñ fi toogee da dañoo seet li nga xam ne yéen moom moo leen di bëggee li leen di bëggee moo tax fuñ mun ci toolu rek dañ leen di indi li nga xam ne moom ngeen di mun di gën di def ba mu baax di bëggee kooku noonu bu baax te dama koo jox suma nomba ma kool ma ci 9933263 9933263 ndax ki la bugga moo la sonal ni ma ko dee faral di waxee te ki gis naa li moo wax daf ko ñor ne ki li la ñor rek da nga koo wane te man gom naa li moo wax waaye nag su ko defee rek na ma call ci 9933263 damaa ñëw ba këram man sama boppam maa ñëw seet si ko incha allah bëggee ko bu baax a baax a baax moo tax ma ne leen bakku bi yéen a ko moom da ngeen koy yëngal ci biir kër gi ma di ko yëngal fii ci GRTS Gambia jëm ca kanam sa su nekk loolu rek laa leen di wax ne leen loolu ñu ñor. tey li nga xam ne mooy olele bi ak abala bi dafa am lu bari si li nga xam ne ni ñun ñëpp dañ see jàngee lu bari moo tax ma ne leen jéegi Gambia fi mu nekk ni kenn defatu tuuta pare bi ndax tuuta pare bi moom ñëpp dañ ko tege boor ready made bi déedéet kenn demadul rek def ready made ñëppay toog ci seen biir kër yi dal di def ba mbaax góor ñi duñ génn xale yi lekka ba suur ndax góor gu lekka nga jox ko mu lekka ba suur tegal ko ataaya coow du bari mi te soow yeeg juusi ngeen di joxe ma dal di jël kooku noonu si laaj bi hello asalaamaaleykum hello hello salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw maam Guèye no maam Dieng. maam Dieng. naam. <laughs> waaw borom bopp bi. waaw maa ko yëngal. <laughs> waaw maa ngi you know nuyu soñum yaay yindum. waaw. Adja Mbambu. waaw. ak soo mag Fatou Sala. Mm-hmm. yaram Bamba estate. ndeysaan waaw. maa ngi nuyu suma jabar. sa jabar waaw. waaw di suma xool mi. ndeysaan dafa am solo. <laughs> waaw nekk ñu jot wàll. dëgg la. waaw abale boobu nag maa ngi bëggoon a lekk suma doom tey Fatou Salla. Mhm. di tey moo nekk baat bi yéen tey. ndeysaan. waaw mu tey man nga xaaral ma kool foofu daal nuyu yëpp daal. yow yow fay koolee. da ah, ngay collège Spain. ah. da ngay collège Spain. ah yaa ngi collège Spain ok. waaw man tudd Mbay Sala. Mbay Sala. waaw. <laughs> sa doom bi moo tudd naka. waaw tamit suma goro. sa goro. waaw su du diba. dafa am solo sa goro bu baaxee nga gërëm ko dara nekku ci dafal ba mu baax. waaw kon fatuma tamit suma oncle Aliou Boob. waaw. waaw baax maa ngi nuyu ñu foto ma kenn maa dégg nga. waaye Mbaye Sall ñu ngi laa bëggee bu baax di la ñaanal fan ak wér. di ko bëggee bu baax a baax a baax ni ma leen ko waxee doomi réew mi la rek nekk bitim réew te suñ fa toogee seen xel ak seen xalaat yëpp dafa delluwaat fi ci Gambia waaye su defee jabar gi nga xam ne moom la baax ci kër gi dama koo ñaan rek nga xam ne incha allah mbay dafa dem daani doole rek waaye incha allah dafa baax ndax bu ñëwee rek xaalis bi bari rek yëpp ci Gambia laa delluwaat moo tax ma leen Gambia dafaa jëm ci kanam dañ koo ñaanal fan ak wér lim uti moo ko xam yal na ko yàlla defal doomam bi celebrate birthday am di ko ñaanal mu celebrate ko at yu bare bare bare mu toog ba papaam di ko ceet incha loolu lañ ko ñaanal su ko defee papaam ñëw nag daal di def ba mbaa Gambia radio and television services lañ wax moo manel ma len sen leen seen téléphone ngeen call ci 4375905 mité mite mité 4375 905 mite 00220 437 59 05 nga ne allo ma ne allo ma daal di jël ko si laaj. hello hello. man la man man la man Fatou. ma faatu. man kii wax wax waaye suma yaay tam mu ne dafa bëgg a wax ak yow. waaw dama suma yaay. salaamaaleykum waaleykum asalaam yaa booy. aywa sama neen ne maa ngi ñaanal. yaa booy jërëjëf yal na yàlla nangu ñaan. maa ngi ñaanal sa waajur. allahumma amiin. parce que tey doom bu jigéen lu mu am na ko gërëmee ndeyam. ndeysaan. <laughs> man la muñal sa bàyyi nag sa kër ga. waaw. moom ngay añee tey. ndeysaan jërëjëf. koo teg. waaw teg fa sa tànk. waaw. jublu ba sa ji bii. waaw. yal na fa yow yàlla teg leeram. yow booy dañ ko bokka. yal na fa jëmmi seexul xadim teg leeram. laax ma amiin. yal na fa sëñ Fallou teg leeram. laax ma na fa sëñ Babacar teg leeram. ah <laughs> amiin. ah. nen ne toujours nag damay bëgg di dugg waaye damaa xamul lu ñuy pressé téléphone. ndeysaan digal la waaye heure boo ayee fii ci télé bi. ndeysaan <laughs> heure ma jullee si guddi dama lay ñaanal si diggante say rax baatin. ndeysaan yal na ko yàlla nangu yaa parce que doomi jigéen yëpp benn lañ. digal la. seulement boo jiitoo jur keneen tamit mu jiit ko. ndeysaan kon nag da nga jur ak kooku la nga jur ñoo bokk ndey bokk baay. digal yal na la yàlla jàppandal allahumma amin yaa boy yal na la yàlla aar allahumma amin te kaddu gi may wax nii maa ngi koy may eh, daayira maam jaara ba kaw ndeysaan te ma topp si ñaareelu jëwrin ndeysaan di yaa soxna Samfa waaw di ko may sama jëwrin di yaa Faat Jóob ndeysaan di ko may sa ndey ji la leeram ndeysaan xaw turam nag waaye Nang ngi koy dàkkantalee suñu tur maam jaara si diggante say rax baatin heure mooy jullee nag maa ngi lay fasal yow laa jëkk fasal doot cee teg samay njaboot di mam Fatou Ndiaye mi la xool tey ba ma jot la ndeysaan jere yal na la yàlla jàppal allahumma amin yaa booy yal na la yàlla aar te yàlla taxaw la allahumma amin lan nañu xorom yal la féete gannaaw allahumma amin ya xam si nga bëgg àgg euh, nen ne jeng <laughs> yal la fa yàlla weesu amin ànd ak wér ànd ak tawfeex deet bul jooy maa ngi lay seetli si <laughs> yal la la taxaw la waaw dénk naa la maam Fatou Ndiaye bés ci tey nag. Mhm. te tey jii moom yoo laa jox ngay magam balaa nga koy xam ne yàlla may ko jëkkër te xam ne bi de bi de na ñëw ba jëkkër nga xam la parce que gis nga ko yàllaa koy def. dëgg la yal na la yàlla taxaw yal na la Seexul Xadim taxawu yal na la sëñ Babacar taxaw ci waawoon ak li ko wër leer nga fa ne yow fa dëgg la ko yàlla yor yee jën yaa xam si nga bëgg a àgg yéen nga weesu foofu kontaan naa trop yow. jërëjëf naa kontaan si si di bigee suñu yaay jooju noonu li mu wax dafa am solo waaye yal na yàlla nangu rek ñun ñëpp ñu bokk ñaan gi si barke sëñ Babacar bi mu tudd kooku nga xam ne nii moom lay wéyee saa su nekk di ko bigee bu baax a baax a baax na yàlla nangu ñaan yàlla taas ñu si sëñ Babacar ak ki nga xam ne nii mooy suñ maam di maam Bamba mi nga xam ne moom i tamit si moom laa wéyee waaye ni ma leen ko def faral di waxee rek bakku bi a ko moom te askan bi yéen seen bopp dafa am fu bari fi nga xam ne ni dangeen ñu fa dee yóbbu foo leen ñu yóbbu rek ni ma ko def faral di waxee rek dañ leen di bëggee bu baax a baax a baax ndax yéen yéen lañ am moo tax ma ne leen Gambia radio and television services ñun ñooy bëti réew mi te ñun ñooy noppi réew mi xëy na yar gi nga xam ne moom lañ leen di won fii nii loolu dafa nekk loo xam ne si li ñu bari rek si loolu la ñu yaree fii nga xam ne foofu lañoo liggéey nañ bokka réew mi dal di defar Gambia télévision bi ñoo ko moom te dañoo dal di def bem baax suñ defee bem baax ki nga xam ne mooy kilifa réew mi dafa kontaan si ñun ndax moom lim ñu sant rek mooy ne nañ ko def ñu def ko ci anam bi nga xam ne ñun ñëpp dañ cee jëriñu ñi nga xam ne ñoo ñoo seetaan di ci jëriñu kon def bu baax rek la def yaa booy dama laa ñaanal fan ak wér di bëggee bu baax a baax si maam Fatou di ko wax ne incha allah dinañ gisee te su gisee bi ne amee rek dina ne incha allah waaye bakku bi yéen a ko moom te yéen suñ fi toogee rek askan bi ñu ñor moo tax ma neen ekkati leen seen téléphone yi rek ngeen call ci 437 5905 mbite 00220 437 5905 mbite 00220 437 59 07 di bëggee askan bi baax a baax a baax waaye tey li nga xam ne moom lañ tooga tey muy olele bi ak abala bi dafa am fu bari foo xam ne nii ñun ñëpp foofu la ñoo yóbbu ndax suñ ne ole leen ne abal war ni ma ko waxee ñoo bokk ndeya baay waaye li leen xaajare rek mooy duutir gi kële dafa jël duutir bi jaxase ko bële bële nag moom plain rek la ma daal di jël kooku moom ci line bi allo asalaamaaleykum hello allo naam allo allo salaamaaleykum waaleykum asalaam aɓe ñaadi mbe jang ñaadi kananteela sumolle ne jambiro ibe ibe min to mbar la programme ole juɓe ka spain spain ɓe ñaadi spain aɓe jambiro ok mbe moyla aha bono jes nga nga juɓere controle ɗo ok mm -hmm. kontondiro le misilan kontondiro di gandiankol bele ka eh. ok dale ole e, e tondi Um, di bëggee suñ mbokk yi nga xam ñoo nekk foofu noonu ci Spain képp koo xam doomi Gambia fi mu munti nekk te di ñu seetaan jamono bi nga xam ne rek yaa ngi sa biir kër dara teew la rek nga toog di seetaan Gambia radio and television services dañ laa bëggee fàttewu ci oncle Omar Diagne nekk foofu ci Angleterre moom itam di seetaan programme bi di ko bëggee ak njabootam gi xaritam yee am di jàmmaam yëpp nekk foofu noonu ca London di leen bëggee bu baax a baax a su ko defee dañoo bëggee tamit ñi nga xam ne ñoo nekk fële ne ci Amérique dama si fàtte sama càmmiñ ko nga xam ne Moses dama ko bëggee saas ne di ko ñaanal fan ak wér waaye di bëggee nag ki nga xam ne mooy Fat Diallo kooku nga xam ne mooy doomi tantamba nekk foofu noonu ca France fàttewu ma si ñoom Kisima Gumaane ñoom Mohamed Hadji ñëpp maa leen di bëggee ñoom démb foofu na nekk foofu noonu ca France waaye ni ma leen ko def faral di waxee bakku bi dañ koo yaatal ba yaatu su ko defee ñun ñëpp ñu mun ciy xëcc ñu daal di def ba mbaa di bëggee suma càmmeñ ji nga xam ne nii Cheikh Dieng